ay Aïcha dañuy daal di euh, ànd ak la belle Mariem euh, euh, xam naa Mariem balaa émission bi jeex danga est doo ma dénk si téléphone ma teel la ko <laughs> il ma teel la ko rek ah naa am solo bàyyi ma teel la ko ma waxu nuyu naa la. Euh, démb maa ngi koy xalaat ci match bi donc euh, yëpp xam naa ne Sénégal yëpp moom la ñu doon xalaat. Euh, ndax lu yàgg dëgg la. Mhm. di nuyu nag Marème du ma fàtte également suma jigéen di Mounas Balde di nuyu ñi seetaan également. Mhm. comme tous les mercredis rek dinañ ñëw si kanam incha allah ak Yoro Ndiaye waxtaan ak moom incha allah. d'accord incha allah Aïcha Marème. waaw leen di bu baax di leen ziar. di leen màggal mm-hmm. tey nag ñu fas yéene waxtaanee li nga xamante ne mooy wax mm-hmm. ku ne xam na ne tissu la boo xamante ne bu am solo boo xam ne tàmm nañ ko utiliser fii nga xamante ne mooy Afrique mm-hmm. dem nañ sax ba tuddee ko tissu africain or que tel n'est pas le cas ndax bu ñu xoolee xaaw a xuus tuuti dañu gis ni wax mi ngi jógee fi nga xamante ne mooy Hollande waaw te yi ñoo ko ñoo ko ñoo ko liggéey ñoom seen inspiration la mais jamono di dox di dem ba ñoom ñi nga xamante ne ñooy hollandais yi daal di ko dugal fii ci biir Afrique à travers leur colon mhm. ci période bi nga xamante ne rek mooy période colonisation bi ak la traite négrière si lañu profité ci biir loolu daal di fiy dugal li nga xamante ne rek mooy wax mhm. mais ci biir loolu aussi ñoom bi ñu demee ba nga xamante ne rek seen marché mi ngi dox soxla nañu suñuy idée ci kaw loolu lañu jël ay mercenaires fii en Afrique Euh, lu ci mel ni gana et d'autres daal di leen yóbbu foofu nga xamante ne rek mooy seen dëkk ci seen usine pour mën a am plus de bon créativité quoi pour mën a inspirer wu mën a aussi euh, indi ci yeneen i xalaat waaye itam yeneen i dessin yoo xamante ne rek dina gën a mën a doxal seen business boobu euh, ci kaw loolu aussi gis nañu ni ñoom biñ ci nekkee di ci liggéey di ci defar façon yu nekk ay couleur yu nekk ñi nga xamante ne ñooy indo yi ak chinois yi daal nañ leen ci fekk si mais dañ ko daal di fokkati seen loxo ndax euh, ñoom itamit euh, ku ne xam ne ni dañoo xarañ ci wàllu ay dessin ak ay couleur yoo xamante ne rek day génn wane taaru li nga xamante ne rek mooy wax boobule ba tax na ñoom itamit daal dañ ci liggéey euh, ci jamono boobu ah ay façon yu bëri yoo xamante ne rek marché bi autant doxoon na bu baax ci seen i dëkk ñoom avant que ñun fii Sénégal mu fi installé wu ba ñu koy tuddee tissu africain. d'accord donc euh, loolu je pense que c'est bien pour ñuy ñu ñu rappeler ko. Mm-hmm. Euh, parce que ñu bëri tey jii nii bu ñu nee wax rek mm-hmm. dañuy foog ne wax. Mm-hmm. c'est africain Afrique ñoo ko moom alors que bu ñu xoolee ci histoire bi Hollande la jógee. muy xuus di di ñëw. ba yegg si fii nii nga xamante xamee ni moo di moo di Afrique mm. mais je pense que Afrique ni ñu ko ni ñu ko adopté ñoom ñu ko créé sax ñoom hollandais yi adopté wuñu ko noonu non non adopté ko noonu parce que boo seetee sax euh, le mot wax c'est un mot en anglais on appelle ça la cire ici on appelle tissu africain comme ni ko ñëpp euh, di déggee voilà pagne africain lañ ko tuddee parce que ni nga xamante ne rek ñun noonu lañ ko adopte di ci def ay modèle yu jéggi dayo di ci ñaaw lu nekk ah, di ci def ay accessoires boo leen ma xoolee ni samay boucle d'oreille ak sama collier euh, c'est ci wax la ak sama ceinture ak samay daale lépp donc ah, euh, wax si ni ko mën nga def taxaw na leen waaw doo déplacé ñu xool parce que daal yi man dama voilà dàll yi euh, mm-hmm. ñu xool taxal noonu. Euh, d'accord Charles. donc euh, muy loolu. waaw kañ ay chaussures en wax. moom la non man neex na ma man man man lii dama ciy commandé. ok d'accord yow nga ne da nga si la dama ciy commandé da nga siy commandé après ñu gisee parce que yii foo ma sol ci. d'accord ok bon léegi léegi léegi xam nga man. voilà voilà très bien voilà tu xam nga. Mm-hmm. man kat si gis nga bii nii. waaw waaw waaw loolu allah c'est que euh, xam nga vax euh, fu mu gënoon a gën a am euh, doole. Mm-hmm. mooy sunu yaay yi dans les années soixante dix. Mm-hmm. parce que boo leen di xoolaat moment yooyu. Mm-hmm. dañoo amoon ay tailleur yoo xam ne dañoo amoon créativité. mais tey jii tendance boo xoolee Sénégal daf ko xaw a bàyyi waxuma kii mais dafa wàcc lu tax. Euh, euh, te ñag yi ñoo continuer ba léegi. bien sûr parce que da ngay xool euh, ci ñag yi la ñu gisee. Mhm. maanaam chemise vax. Mhm. bu góor bu góor veste vax. Mhm. bu góor. te ñag yi ba léegi ñu koy sol. bien sûr te da xool xoolal autorité wu ñag yi. ñag yi seen autorité yi. ay vax la sol. ministre président. xoolal xoolal xool xool da xool président yi da ngay xool temps Gbagbo Gbagbo lu ci bëre moom di daan sol ci waaw nii moom lay sol même mhm. jigéen ñi seen mariage seen mhm. tenue yi merci am nga ñoom parce que dafa am créativité mhm. seen euh, seen euh, tailleur yi ñoom ne il faut que ñun suñu tailleur itam tailleur mooy valoriser tissu loolu la il faut que la ñun ñu ñëw fii Sénégal man dama gis ne dafa wàcc xaw ma nag lan la xaw ma dégg parce que dafa am ay yenn yenn mais parce que les tissus là yëpp. Mhm. Euh, ki lay juge Hollande lay jugee. Mhm. Mhm. jasneer bi ngeen di wax. Euh, kii bi euh, kii bi yooyu yëpp. foofu lay jugee ñoom ñoo aay ci tissu. waaw ñoom ñoo ñoom mais gars yi tey ji dañoo mën a di jëlaate. tey jii dañuy jël jasneer ñu bàyyi tey ñu ne xaw ma lan bassin riche di def noonu mais man je pense que aujourd'hui suñu tailleur yi war nañu ñëwaat. Euh, indiwaat ay yeneen créativité comme yi mhm. wala kii mhm. déjà yi muy sol. Euh, lii amul lu ko daax. Mhm. d'accord man euh, li may wax moom mooy comme li nga wax loolu foofu laa lay fekk si Sénégal dafay jëlee day jël day jël tissu day jël mode boo xoolee te te malheureusement. ñun c'est vrai que daawuñu defar vax mais daal amoon nañu euh, Sotiba bu doon defar bu mm-hmm, mm-hmm. donc mu xaw a ni niro góor ñi sax daaw mën ñu woon ku ràññee vax ak Lagos mm-hmm. parce que tellement que presque design yi benn lay doon euh, mais euh, boo xoolee Lagos bi ñun su suñu ay su suñu ay design lañ daan gën a jël suñu ay couleur lañ doon gën a jël mu mu mu en tout cas mu méngoog suñu réew muy Sénégal Euh, léegi nag euh, li tax aussi tamit euh, muy raar fii mooy li ma wax rek moom mooy que di Sénégal jigéenu Sénégal moom lu ñu xewal rek loolu la bu ñu nee jasner jasner la bu ñu nee cuub cuub la bu ñu nee nag donc kon loolu moo tax peut-être yeneen pays africains yi rawuñu si loolu. Mhm. et peut-être yeneen pays africains yaa ngi wax ni président yi dañ koy sol ak yenn yenn autorités yi ni ko fonkee. comme ni mu amee par exemple ay choix noonu la amee foofu aussi tamit parce que des fois ñu la ko fii euh, am na ay tailleur fii yi nga xam ne tey jii même ñag yi ñu ngi fii des di ko ñëw mhm. euh, euh, pour pour pour nga xam tamit vaccin daf leen intéressé lool ñu mën ko sol en costume wala ñu sol ko si si si ay chemise ak yooyu mhm. donc loolu dafa am solo également tamit comme li nga wax noonu ñu ñu ñu parce que tey jii boo xoolee jasner bi nga wax noonu muy Hollande muy Allemagne donc mhm. di si def ak Mali bien sûr ak yooyu donc boo xoolee euh, euh, vaccin bi pour war na di Sénégal moom day day jéggaani rek boo xoolee Mali Cuba euh, lépp li nga xam tey jii par exemple si wàllum cuub la wala si si wàllum teinture ak yooyu yëpp foofu lañ koy jëlee tey jii vaccin bi dañ lay wax ni yeneen pays africains yi lañ koy jëlee donc ku wane ni ñun suñu problème moom mooy ñu ñu gis benn affaire jéem a implanté lu mel usine bu mel noonu te c'est c'est le moment pour man. Mhm. et ñu ñu ñuy solu africain boo xoolee si yeneen tissu yëpp suñu tailleur yi gàcce ngalaama ji nga ñi ñi ngeen solo. Mhm. gis ngeen également sànq rek bi bi. Euh, bi munaas di wax ni euh, taille basse bi ñu wane woon sànq pour wane ni suñu seer ñu ngi ñëw mais malheureusement ñoom tamit dañuy topp tendance bi li jigéen ñi bëgg la ñu bëgg te jigéen ñi ñoom ñooy ñooy orienté en général li nga xam moom mooy tendance man nag euh, Marème man je wax euh, mm-hmm. su ma juumulee bokk na ci tissu bi ñuy gën a utiliser fii ci Sénégal parce que tey bu ñu jëlee ay jersey rax yooyu noonu nit ñi ñu ko solee mm-hmm. tabaski wala korité wala xew mm-hmm. la ñuy koy dem jënd ko sol ko par contre ay ay wax ak yeneen tissu yoo xamante ni prix bi déjà dafa dafa accessible à tout moment jigéen ñi dañ koy dañ koy jënd di ko ñaw même bu ñu amulee xew sax dañ koy génn di ko ñaw di ko toogee di ko toogee ci seen i kër waa parce que dafa non seulement jekk na mhm. mais aussi ak ni ñu koy ñawee ak ni ñu ko waxee tissu bi daf prix bi dafa accessible ba day ça te permet tout le temps nga mën ko di ko jënd que euh, di ko sol euh, les bassins et consorts yooyu événement rek nga ñu gis wala nga am euh, xew wala mhm. dara nga koy jënd mais vax tout le temps mhm. nit ñi dañ koy jënd dem na ba léegi ba demee si marché yi li nga fay gis du bëri ci ay tissu vax lay doon et surtout que su seen xew yi bare na lu ngeen koy teralee lu <laughs> moom la ñuy moom la ñuy teralee nga xamante ni <coughs> excusez-moi ñi nga xamante rek dañuy xew dañu ëpp na ci li nga xamante rek seen i teral ci vax yi lañ koy kiwee mm-hmm. mais vax yu baax yi quoi comme ni ko coach waxee sànq aussi femme vax yoo xam ne c'est uniquement pour les rois comme ni si yeneen pays africains yi ñoom wax rek la ñuy sol parce que moom la xam te dañ koo gëm dañ koo bëgg daal ñoom mm-hmm. dañoo bëgg li nga xamante ne mooy wax comme ay président et consort ñoom dañuy mm-hmm. sol li nga xamante ni rek mooy wax parce que euh, day wone culture nit ki pour adapté nañu ci vaccin ba tellement que léegi mhm. lu ñu neex lañ ciy def ça mhm. se voit que ni aussi boole nañu suñu bopp ci biir mhm. li nga xamante ni rek mooy vaccin bien vrai que ni Hollande la jóge mais aussi nee nañu euh, c'est notre héritage c'est l'héritage de la culture africaine moo tax euh, ñun am nañ ci wàll daal ndax euh, boo seetee yenn dessin yu bari pour hollandais yi mënoon am yenn ci ay euh, dessin wala kii il a fallu que ñu ñëw fii jël fi recruter fi ay mercenaires yóbbu mm-hmm. leen seen i dëkk pour mën a am comme lu ci mel ne ay genre Bogolan et consort mm-hmm. Mm-hmm. donc yooyu aussi ñoom tamit fii lañ ko jëlee maanaam dañoo chippe suñuy xalaat ko loolu moo tax ñun tamit génn pour la petite histoire il faut nga ne tamit la Hollande y a des noirs là-bas des noirs hollandais oui Afrique la ñu mhm. mhm. waaw yooyu dafa am. Mhm, ba euh, c'est pas les Hollandais mais booy xoolaatee ñi li liggéey ci bi. la plupart ñoom la. waaw ce sont des noirs. Euh, kii yi parce que ñoom tamit jot nañ ci esclavage bi. Euh, suñuy maam yi. ñoo jugoon foofu yóbbu nañ leen Hollande. beneen affaire bu ma ci yokk moom mooy mais va mais vax bi ñu ko valoriser mais bi yéen Beyoncé. Mhm. BNC sol na ko fi. effectivement mhm. dem ci benn cérémonie bu rëy. Mhm. après ñoom ñu jëlaat ko. voilà voilà waa Sénégal yi ñëwaat na xam nga yéen gi nga li ma ko waxee moo ci nekk. al mu def tresse bi gars yi. dem tresse bi voilà la. ñu koy valoriser mais. des fois gars yi bàyyi ko gars bàyyi lo c'est que ñun moom ñooy ñooy ñooy jéggaane te jéggaane waruñu. ba pare euh, tata diggéen yal na ko suñu borom xare àjjana. dama daan déglu toujours man damay damay damay inspiré wu ci mag ñi donc dama daan dégg tata laa déggee naan jéeg bu ndaw nay fawe vax dëgg la dee ko taajee añ dee ko duggee sa waañ mhm. parce que taybaas dafay attirer góor Mm-hmm. taille basse dafay mettre jigéen en mm-hmm. Mm-hmm. dina génne sa forme et puis grande dame na tamit sa jëkkër da ko ciy attiré tubaarikàlla ah, macha allah dëgg la am dafa am góor ñu ko ñoo xam ne dañoo bëgg seen jabar sol ay baat am nañu ko ba xam ne ki tamit toujours da ngay dugg ci ay ay yëre tubaab yëre tubaab dëgg la mooy li ñu doon waxaat moom mooy ah. del siwaat rek nañu jël vaccin yi nekk jeeg sa biir kër gis nga góor ñi dañuy namm jeeg xanaa xamoon nit a ngi naan sama bon par exemple dafay génn ak sama jëkkër loolu la santé di bon bi di def moo tax toujours rek dee leen nañuy variété li ñuy sol surtout max surtout sër yi nañu waaw da ngay woddu ay sër sa jànk day nekk ci biir kër gi woddu sër def vax nga naan sama jëkkër di commencé di ko fiir di genre xam nga mais lan moo tax mënoo sol loolu yenn saa yi da koy sol variété def loolu sax effectivement ni ñëw ba mbay baab ka muy gis nga may ñu ngi waxe tendance xool di reetaan may ngi tukkale mais Marème lii ay yëre la accès accessoires yi ci ci ci ci ci wax bi gis nañ ne léegi comme yow ni nga def nii bu weesoo yére ñu koy def mhm. ñuy koy def ceinture di ko def ay collier di ko def ay ay jaaro ah di ko di ko def lu ne même ay bere mbaxane ay saak aussi ñu koy defaree ci li nga xamante moo di wax nice. waaw waa li ba rek. te ñi dëkk ci euh, dëkk bi nag ñoo koy defar. surtout les fii ci Sénégal fii ci senegal am na solo lool Charles nga photo yi s'il te plaît. am na cordonniers yu bëri yoo <laughs> xamante ne ñoom léegi seen liggéey lépp non plan dañuy jël ay. koy ay dàll ay basket ay dàll da ci liggéey li nga xamante ne rek mooy ay vax ci def ay ballerine ay euh, ay ay ay dàll talon voilà dañ ci def aussi ay collier ay mm-hmm. boucle d'oreille mm-hmm. ay chapeau ay fula yoo xamante ne rek euh, saa saa yu solo day accompagner li nga xamante ne rek mm-hmm. mooy sa sañse même bikini sax léegi dañ koy def en wax euh, xam nga bikini bikini bikini xam naa ke photo yaa ngi nii ok vaccin yaa ngi nii waaw ah, loolu lépp dañ koy def dañ koy def léegi ci vaccin ñu ngi ciy liggéey lu am solo ah aussi vaccin vaccin bu ci nekk dafa am tur mhm. vaccin bu ci nekk dafa am tur euh, am na vaccin yoo xam ñu ngi tudd euh, la maman qui am bu yoo xamante ñu ngi tudd euh, un enfant qui pleure mhm. am bi nga xamante ne mi ngi tudd le le, le rival le, le rival le rival comme nee nañu ay message la yoo xamante ni rek da nga koy lancer ki nga xamante ne mooy génn ak sa jëkkër. Hmm. pour wan ka ni yow. mun na chercher à tous les moyens à ce que mu nangu sa jëkkër mais du mun a nekk c'est-à-dire foofu du baax quoi waaw yooyu yëpp tamit dafa am ci ay turu vax yoo xamante ne kii woon nañ photo mais seulement que dañ koy yéex a dugal pour nit ñi xam vax bu ci nekk lan mooy turam bu ko defee ku ko soldé boo solee vax bi xam ne yow vax bi euh, loolu doon na ma neex ñu moom mari est capable waaw am na ay turu ah, moom mari est capable boobu utal ma si waaw voilà voilà utal ma si moom mari est capable dama koy bëgg xam naa ne ci si bu rafet lay doon merci Mariam <laughs> waaw Fatou maa ngi laa ziar bu baax a baax a baax a baax amoon mbégte àndoon ak yéen ci rubrique bi nga xamante rek mooy mot ebati ñu indiloon leen vax vax nag liñ ci war a wax lépp euh, bëri du fi xaj mais dañ koy daal di doog tey ba beneen yoon incha allah daañ ci gën a xusandi indi ci ay leeral yu leera leera di nuyu euh, ñëpp ñi nga xamante nag ñoo teewlu woon seen rubrique mot ebati ci biir petit déj mhm. di nuyu ki nga xamante ni rek mooy Ousmane loolu moom soppee Walf TV la keroog nee dama Walf laay bégee keroog ba ma dafa gisee dama kontaan ndax ñoo bokk koñ maa ngi la ziar bu baax Ousmane Lo ak tante mhm. Ndeye Diène yaayu Babacar ak Soukay mhm. ak sama yaay Fall maa ngi laa ziar bu baax suñu waa kër